bëri xale yu góor yi waaye neexuma dara ah kii sa doom la sax kii doom Pape Seye la tu vois sama gars yi as baba yéen a ngi a ngi jàng waa Signor. waa Signor jàngi woo. yaa man maa feebar. feebaru la depuis kañ nga feebar. man bopp kañ la la commencé. fan yii te waxoo ma ko waxoo ko sa papa. ah. Hmm? lu tax waxoo ma ko. dara. Signor temps yi dama la seetlu de. junior ma nga ca kaani ga hmm? junior a nga ca daqaar ga junior waxoo ma dëgg yaa ngi may nëbb de tanday kenn du ko nëbb waxal ak man lu la dal yow man dara jotuma kii démb suñu école asalaamaaleykum junior daal la ngi tëdd naa damaa feebar te junior temps yëpp dama ko seetlu di jaay fan ni maa ngi ko seetlu mu ngi lekki daqaar di lekk lu saf dara du ko romb ti lu saf yaay papa man démb ba ma demee suñu école dañ maa yóbbu hôpital. pour pour lan. man damay sama bopp bi day métti may miir rek après bi ma demee hôpital ñu ne dafa am lu nekk sama biir bi di daw. di daw démb ba léegi. yow démb ba léegi man la yeewoo ci kër gi waxoo ma ni ma siñoor dafa feebar. siñoor daal mi ngi nii na la wax li ne ci moom. yow yaa ma war a wax di siñoor dafa wopp lu tax waxoo ma ko xanaa fanaanunu ah. yaay bàyyam. Hmm? lu la jot. Hmm. dara. ca jotee la kon maa ngi di waxtaan ak yow nii. waxtaan yu sotti ba mu sotti ba mu lu sotti de ba mu eh wax ma lu la jot ah. papa du dee bu eh du ma sa morom de. la ma la jot. papa dama ëmb. am na. ku la mbal. laay ndax la mbal. ku la mbal. mu ko wax. ko wax mooy waxi lan. ci yow da la ilaha illallah. yow yaa bon xamoon naa ne li dina ko dal. eh ku la mbal yow. kan ma la mbal. di nga ko wax nag wala mat. eh kan ma la waxal léegi eh, su ma ko waxee du baax. li ma ko waxee li nga. xanaa du nit. yow da ngaa def. man lay

une troupe ma lai ma suis vice président bi sommes euh, Endo Mati Diop ñun euh, di góorgóorlu euh, man je suis ci bi xëy na guma parce que depuis 2000 avant 2000 sax suis si di ci école yi di ramper jël sama suis am fu ko ni tard fa yegg mais duma ko forcer ma tok suñu salle bi di seetaan moy gis ay théâtre di n'importe quoi mané li pourtant dé mën naa ko sama yaay ne ma sa wax ji bari na soko ko mënee demal defi ko feu bu feu vert boobu laa doon xaar ci mom rek mu jox mako rek ma tak samay daal mais dem na ba si benn instant mom réccu na lutax tax ko doon wax parce que mënatuma gis guddi ak bëccëg ma ngi tak sama sac ma ngi voyage ma ngi dem fu nek mo tax léeg-léeg ma toog ba si yàgg mu ra mu ma raar ko daal maanaam ma gëj ci kër gi léeg-léeg may dem di ñëw amatuma lekk amatuma kii di doom xam nga mu dem mu jógi mu a yow de bu ma yëgoon doo dugg ci aar bi parce que parce que que bien vrai que yegguma fi ma jëm mais dama si sonn mu jaral ma lu nekk nag si àdduna waaw bi yàqu na yàquwul comme ni suñu président waxee barki dem xëy na mooy xëy na cëpp mm. parce que yàgg naa si maa ngi ràmpe mais chaque jour j'apprendre pour savoir damay jàng. yeggaguma fi ma jëm. da ngay gis ku def trois cassettes deux cassettes rek daal ni mokkal naa wala siiw naa gis nañ ma ci télévision bi c'est non voilà mine lii nii nga monté nii gars yi xool nan nga ko inspiration ba ak fan nga tek dal ak thème bi foko ko ba war a askan bi li wa xam nga actuellement dëkk bi dafa jaxasoo eh, jaxasoo na jaxasoo boo xam ni chaque jour nga déglu fait divers ñuy wax ay mbir yo xamanteni dafa doy war ta man toujours sama sketch soo ma xaju xaaju guddi tamit yor ci ay paquet yo xamanteni parce que c'est le monde en l'envers C'est le monde en l'envers euh, l'hypocrisie homosexualité s'installe et dégénère euh, pédophilie mi ci bir kër yi euh, man toujours sama thème si yoy lay jouer ay polio ay pédophilie ay yi nga xamante mom moy mom moy mooy as kii xale parce que dama bëgg xalé man sama sene sepp xalé gis nga xalé ci si mi nit may def motax lepp luy lor xalé sa xalé rek man maa ngi ciy joué quoi nga nekk ak say soxna wala nga nekk ak sa dom ci biir kër euh, ñu koy def yenn yi te du ko mun wax te borom kër yi dafa mel dafa am ñoo xam tamit am na ñoo xam am ay pervers parce que feebar la quoi xam nga du la wax réellement li si am mais toujours sama xeex moy pédophile yi nek ci biir kër yi di sono xalé yi mo tax toujours rek joué naa ko Kaolack joué naa ko feneen ak fenen festival yi yëpp joué naa ko fa ak polio ak yermande parce que parce que parce que artiste comédien dafa war a dafa war yaatu dënn dafa war a yaatal dafa war a xam actualité xam nga da war dal man sama yaram dafa daw sax bi mu bi mu papa li jóge ci man kenn xamul nu mu tollu